mbokk sunu jataayu tey dars bi ñuy tàmbulee moo di ne yu ñoon nañ ko ci sunu jataayu weesu ginnaaw bu ñu leeree leeralee lu am solo njàpp ay ngëneelam wax ay atteem insha allahu taala tey nag jàpp ci boppam lañ bëgg joxe bind ci nuñ koy defee kon loolu la tàmbulee wan nu ñuy jàppe lu ci nekk ñu leeral ko incha allahu taala suñu noppee nag ci ñaareelu xaaju jataay bi ñu dellusi ci laaj yi ngeen baaxoo laaj sëriñ bay Diop ñëw jotali ko ñu tontu ci incha allahu taala kon ñu njëkk a joxe bind bi te mooy nan la ñuy jàppe mbokk yi ngir xam ni ñuy jàppe ku bëgg jàpp li jiitu ci liñ ko sant mooy na wut bant mu soccu soccu gémmiñam kaw bëñ yi ak biir bëñ yi kaw làmmiñ wi bu amee bant moo gën bu ko amut mën na ko defee ak loxoom bu noppee gàllaxndiku raxasaat socc bi denc dem nag ci barab bu set bu laab mu toog yóbbaale ndox moo xam ne day mel niñ soxla mu wax bismillah raxas loxo ndeyjooram li tàmbulee ci cati baaraamam ba ci tikku jaraam ak loxo càmmooñam bu ci nekk mu raxas ko ñetti yoon xalil baaraam yi te buy xalil baaraam yi mu jaare ko ci ginnaaw bu takkee jaaro jërul mu di ko dindi moom mën naa wëlbati rek jaaro bi ba fi tëdd tooy noonu lay tàmbulee bu raxasee loxo yi ba noppi noonu ñetti yoon galaxndiku mooy jël ndox mi dugal ci biir gémmiñam xoj-xojal ko yàbbi foofu soxlawut muy dugal baaraamam waaye na xoj-xojal yàbbi def ko ñetti yoon saraxandiku mooy dugal ndox mi tànk ndox ci loxoom ñoddi ko ak noom nu mu gën a sori moo gën nag su fekkee ne wóorul baaraamu dëyam ak baaraamu sànni ci loxo càmmooñam nit ki bu doon ñandu ni muy def wal ko mu génn bu ko defee gallax ak sarax ñaari anam mën na ci ab benn bi mooy boobu ngeen gis day gallax benn yoon sarax ndiku benn yoon gallax ndiku waat sarax ndiku waaye mënoon na it daf ñetti gallax ndiku bañ mat mu door a sarax ndiku ñetti yoon lu ci nekk baax na bu gallax ndikoo sarax ndiku nag daal di tànk loxo duy duy ndox ak loxo mam fees loxo ndeyjooram mu daal koy booleek loxo càmmooñam sotti ko ci xar kanamam tàmbulee ci kaw mooy ci jëba fa kawar gi baaxoo saxee di wàcc raxas lépp léppi kanam gi raxas kanam gi ba mu set ñetti yoon ci biir raxas bi it na bàyyi xel barab yi nga xam ne léeg-léeg ndox mi du fa gaaw àgg ma waral kon diggante paxe ba kanam diggante ay bëtam sikkim bi bu fekkee ne sikkim bu kawar ga bariwut lool la na ko xaliil ba ndox mi egg ci der wa kon tàmbalee ci fi si kawar gi baaxoo saxe ba ci ron sikkin bi tàmbalee ci noppum ndeyjoor ba ci noppu càmmoñ noonu lay sëlmoo bu sëlmoo ba noppi nag daal di raxas loxo ndeyjooram moom tàmbalee ci cati baaraam yi ba ci tikku jare yi itam sotti ndox mi mu tàmbalee ci kaw wàcc ba ci concoli mu siwaat bomb wet yépp xalil baaraam yi te jaaree xalil bi ci ginnaaw daf noonu loxo ndeyjooram daf noonu it loxo càmmoñam bu nappee ci euh, raxas loxo yi nag mu tànku ndox ci loxoom tooyal ay loxoom la bëgg a wax tooyal ay loxoom waaye foofu du tànku ndox day tooyal ay loxoom ba mu tooy rek mu lënkale ay baaraamam teg ko ci kaw boppam fi kawar gi baaxoo saxee massa jëm ginnaaw ba fa kawar ga ba ci ndonga mu del siwaat lënkale ay baaraam fekk baaraamu déyam ñaari baaraam yi da koy teg ci ker noppam ñu ànd di dem ba ci ginnaaw nopp bi ñu ànd si siwaat noonu la ñuy masaaye bopp su noppee ci masaa bopp bi nag mu daal di tooyal ñaari baaraam yi dem ñaari baaraam sànnikaayam tooy tooyal leen rek daal di masaa nopp yi tàbbal baaraam yi sànnikaay ci biir nopp yi baaraam yi day yi ne ci ginnaaw nopp bi masaa la rek moom du fu dugal ndox waaye tooyaay bi la fa yóbbu bu noppee nag mu dem ci tànk njëkk raxas tànk yi waaye njëkki tànkum lay jooram tàmbalee ko ci cati baaraam bi xalil baaraam yi raxas tànk yi raxas ba ca dojar ba raxas ba ca testan ma lépp mu raxas ko ñetti yoon wala bokk mu raxas ko ba mu set bu noppee ci tànku nay joor bi mu def noonu tànku càmmoñ noonu bu ko defee njàpp mat na ku jàpp ba noppi nag mu daal di jàng ñaan gi ñu bëgg a wax seere ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mën na caa yokk allahuma jacal nii min altawaabina wajacal nii min almutatahirin yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne ku jàpp ba noppi seere ñaari baati seere yooyu sunu boroom ubbil la bunti aljanna yi ku jàpp ba noppi it bu ko neexee mën naa fomp ndox mi mën naa jël fomp ko ay sarbet wala leneen mu fomp ay cëram yi tooy yépp waaye bu ko neexee it bàyyi noonu maanaam li ma bëgg wax mooy kum neex daal boo jàppee nopp nga fomp ngir bañ sa yére tooy waaye bàyyi ndox mi du lañu santaane day aju ci rek ci coobari bu ko defee noonu moom li ñuy santaane jàpp mooy jàpp moo rafet mi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu ñu waxoon ci bind yi insha allahu taala nag ci sunu jataay yi di ñëw danañ leeral ci biir lii lan moo ciy farata lan moo ciy sunna lan moo ci li ñu sopp danañ àgg ci yeneen yi nga xam ne day yàq njàpp ak yeneen yépp insha allahu taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu